يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي يا محمد يا محمد يا حبيب الله على الوسير سيف البصير في دار الخدير مجري الغداء على الوزير سيف البدر ساج المريد الخدير مجري الغداء ساج على الوزير سيف البزير عيد الخدير مجري الغداء ساج على الوزير ساجي القدير مدر الخدر ساجي على الوسير سيف البصير إيد الخدير مجر الخدر ساجي على الوسير سمم يا بارد الخدير مجر الخدر ساجي عبلي وداد خذ للمجر المراد أمن أفاد براكرا أبلي ردا ردا ردا يا من أفاد براكرا سساجي أبلي بورورا إن الخارورا أبدا سرورا لكل jay Saajay mbay wa sukuru xila wa madkala la malami wa lam jira way sa sajay may sa didi lisani na wirjanani kafil amani wa sidqa Masamba Mbay jóge góori yabura di amaane may Sëriñ Xaadim may saasaata daayira yi xotama al tadfi jawra li yabura adayra amara wal tadfi jawra mami Sëriñ Mudu Taayir an yaa la la بالعلان خل عسارا عن غزريان بيسح مسام بيخني عتاب ودل الكتاب واقبل مرتاب يا سلسلة كتابا كتابا واقبل مرتاب Cheikh Sadio Mbaye yaa xayra ra xayral الغرام كي يبتخل من بعد سيخ ما سامبا مباي يو دي غور يولا يبتخل من بعد سيخ ساجا مباي سلي وسال على الموتى وكل ياس بلا انتوى سلي وسال على الموتى وكل ياس bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li al amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokki téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen ñi nga xam ni yéen a baaxoo di ànd ak ñun ne ci seen émission bu mag bii nga xam ni mooy kéemtaanu mag ñi kéemtaanu mag ñi semaine bu ne danañ tànn génn kilifa waxtaane ko waxtaane dundam waxtaane jaar-jaaram waaye waxtaane diggam ki ma àndaloon di liggéey ba laq ngërëm tey jii ñu ngi kër Seex Saajay Mbay ku xam Cheikh Sadio xam diggam ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bokkoon ci Cheikh Serigne Touba yi waaye bokkoon ak seex Samba jaar mbay mi ñëpp xam ñu ngi fii ci fas Mbao kër ma fàtti mbay mi nga xam ni sët la ci Cheikh Sadio waaye sët la ci seex Samba Diarra ñu fas yéene waxtaanee Cheikh Sadio mi nga xam ni tabaarakallahu ak dundam yëpp doo ko joxoon sëñ Tuba ah, ñu sëkk waxtaan wi Cheikh Ibrahima Mbaye mi ñëpp xam waaye mu feggoog Cheikh ma tëyër mi nga xam ni doomu Cheikh ma sàmbala la di sët ci Cheikh Sadio tabaarakallahu dégg ngeen di yi nga xam ni yëkkati nañ ko fi ma Moustapha mbay jàng ko mook ñoom aale ak Cheikh tabaarakallahu ci yu am solo yi waaye nuyu bu baax soxna Ayda Cuun mi nga xam ni mu ngi ci plateau bi moom it euh, moom it di sët ci kër googu Cheikh Ibrahima ñu bàyyi la nga nuyoo ñu wax la asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, alhamdulilahi alladi xalaqa adama min taynin fa sawaahu wa qasama durriyatahu ala aqsaamin mutafariqatin la yaalamuhu ahadun siwaahu fa fariqun afqarahu fa fariqun agnaahu fa fariqun abadahu fa fariqun adnaahu wa radiyallahu an cheikhina alxadim cheikhu shuuxi xutbu rabani wa imaamu alaarifin wa ala jaddina alkarim cheikh Sadio wa cheikh Abdou Karim Samba Diarra eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di dellusiwaat ak yéen ci nin ko baaxoo defee rek ak mu nekk ci waxtu wi nga xam ni suñ ci tollee eh, ci bis bu am solo bi nga xam ni moom moo nekk ci sunu kanam muy bisu Cheikh Sadio eh, di nuyu bu baax mm, sëñ moodu ak mboolem mbokk yi nga xam ni ñoom la àndal ci liggéey bi di santit suñu mbokk jànkati xasida yi ci yëkkati bi am solo bi ci njiital sëñ Moustapha Mbaye di ñaanal bu baax it Ma Fatim mi nga xam ni eh, at mu nekk rek mu am taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci bis bii mm-hmm. eh, di ziare sëñ ma tayer bu baax a baax suñu sëriñ di suñu kilifa ci jataay bi mm-hmm. eh, di sant bu baax it sëñ xaadim mi nga xam ni moom moo taawu liggéey bi di ñaan suñu borom guddal fanam yàggal ko lool ak mbooloo mi yëpp sëñ Modou xam naa ni duñ def rek lu dul dugg ci jëmm ji nga xam ne si incha allah moom moo waral jotaay bi. tabarakallahu euh, nuyoo bi am na solo lool. Euh, mi ngi noonu. Euh, tey jii boo ñu bëggoon a xamal Cheikh Sadio. silsila Cheikh Sadio. maanaam maanaam maanaam cosaan li. Mhm. bëgg nañ nga xuus xuus ci tuuti. waa waaw suñu jër jërëjëf ndax xam nga. arab dafa nii faatul buyuuta min abwaabiha dooy dugg ci nekk da nga jaar ci bunt ñu ngi nuyu bu baax xalifa bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Sadji sëñ Moustapha Mbaye Jiwaalo hmm. nga xam ne tey mbir mi su yëngoon nii rek moom la ndax tey jii ni ñu koy faral di waxee rek suñu woon day taxaw day taxaw waaye kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam ak naal yi nga xam ne naal na ko ci kër Cheikh Sadji nga xam ni ku fa ñëw da nga xam ne yokkute am na hmm. di ñaanal tamit sëñ Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba euh, sëñ moo li nga ma laaj euh, danaa ci sawar euh, ndax xam nga boroom xam-xam yi dañoo wax ni ñoom yomb noo xam dëkku ni ndax ñoom borom xam-xam bu nekkee ci àdduna wala nitu yàlla yooyu nga xam ni ñoom danoo liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala suñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moo wax ni suñu nekkee ci àdduna benn bët la ñuy gisee seen njaboot bu ñu leen wanee ginnaaw junni bët la leen defal ñuy gis loolu mooy sàmba mën na kanamam waaye mën na ginnaaw hmm. ñoom suñu borom moom moo leen ko jagleel jëmm ji nga xam ne moo waral jataay bi moom dafa bokk ci euh, càllale cheikh abou bakrin sadiq mi nga xam ni kenn ku ci nekk ko xam histoire sayyiduna muhammad rasulullahi xam nga ko moom rek lan wax ni moom moo jëloon doomam ju jigéen jox ko Seydina Muhammad muy Aïchatu mu nekk jànq mhm. moo waral ñu koy wax Abu Bakrin loolu du turam Abu Xuwaafata la tudd waaye Abu Bakrin mooy bàyyib jànq bi fatxu Màkka bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mag Médine ñëw di ubbi mag Seydina Abu Bakrin dafa kontaan keroog ni seen Seydina Muhammad rasulullahi doon def ba jooy jël doomam ju jigéen jox ko ko ni ko hadiya rasulullah jamono boobu soxna si mi ngi am 13 ans. Mhm. mu jël ko jox ko Seydatuna Khadija. Mhm. boobu soxna Seydatuna Khadija moom mi ngi am 53 ans mu yaral ko xale bi ba mu am ay ñeenti at ñett ci loo ko doog jël nag mu bokk ci soxnaam mu doon koo xam ni dafa liggéey liggéey bu rëy euh, jëmm jooju nag ñoo Aboubacrine suñu doon wax ci histoire am wala ñuy wax taxawaayam day yaatu waaye dañuy daal di dugg rek ci taxawaay bi nga xam ne si moom amoon na ko waaye foofee la maam Cheikh Sadie soqi ko suñu dikkee ci maam Cheikh Sadie mii nag. moom dañuy daal di dikk ci ki nga xam ne moom moo njëkk wàcc ñëw ba jël ci lingeeri kajoor yi ñu koy wax euh, Abu Bikrin euh, Siddiq waaye jëmm jooju ñu koy wax Ibrahim Khourayshin Ibrahim Khourayshin nag moom moo gàddaayoon dem di jàngi yokk xam-xamam ndax mag ñi ay seen jamono seen yitte yëpp mooy am xam-xam mhm. seen yitte yëpp mooy abi am yàlla mhm. seen yitte yëpp moom mooy wàllu lépp lu jëm ci wàllu diine lu ñu ko mën a yaatal yaatal ko dañ daan def suñu jàngee biir téere buñ ko jeexalee dégg am na ku mën beneen téere ñu jàlli foofee Ibrahim Khuraysin moomu nag bi mu jugee Yemen euh, ngir yaatal xam-xamam daa wàcc si ñëw ba Turquie bi mu ñëwee Turquie tamit dafa continuer ci loolu wàllu njàng mi ba ñëw Masra mu Égypte bi mu ñëwee Égypte nekk fa ab diir yokk xam-xam ci wàllu jàng mu gis ni dégg na keneen Maghrib muy Maroc mu wàcc fa bi mu fa ñëwee tamit mu dégg ñu ne Mauritanie borom xam-xam yu mag yaa nga fa yi nga xam ne si ñooy waa Idwal Xaaj mooy ñooñu nga xamee ne si ñoom euh, complexe tubaab yi jàppoon nañ ci ñoom seen digganteem ak sëriñ tubaab bis bu ñu jëlee sëriñ tubaab indi ko foofu dañ am complexe nit ku ñuul ba taxoon ñu indi ko fa waaye gis nga fi noonu na mu mujje te xam tubaab moom mooy mooy daj dëpp gi fa lépp mate tey jii gis nga ñoom far mujj ak ñoom ba mu indil leen way woowu nga xam ne mooy hamdi wa shukri leen kulli bi saara sëriñ bi nag moom bi mu ñëwee foofu moom Ibrahima Khouréchine euh, jàng fa xam-xam yi nga xam ne moom la doon wut ba ba weesugul xam-xam yooyu ci la daal di wàcc nag ñëw ndar ndar nag xam ngeen ni borom xam-xam yi mag yi ñu ngi fa woon ay nitu diine yi mhm. ak nitu xam-xam yi nga xam ne si ñoom seen taxawaay ci islam ñëpp dañ ko xam foofee nag la wax ni fa njëkk a jëlee soxna soo xamee si dafa bokk ci lingeeri kajoor yi bi mu ko dencee euh, ci la am taawam ñu koy wax Mouhamadul Ghali ak maam Cheikh Ahmadul Kabir ak maam Modou Mbaye ak maam Modou Mbaye bu mag ma nga xam ne si ñoom meññ ndax kooku moom mooy a as Sadio Asalis Sadio ëwal bokkul ak moom Sadio Sani bokk ak moom ndax ñoo ñi ngi Turki kenn ki ma nga Maghrib waaye ñu mujj kii nga xam si tey jii moom meññi moom la maam Modou Mbaye meññi moom mooy maam Cheikh Sadio mii nga xam moo bokk ak maam Cheikh Samba Diagne. na yeneen yeneen Sadio. ñetti Sadio la. Mm. waaw Sadio mm-hmm. moo moo moo nekk Maghrib moom moom moo mujj parce que moom moo nekk Turki waaye ku jëkk ki nga xam si moom moo nekk Égypte. Mm-hmm. waaye ku mujj kii nag moom moom moo meññi maam. Modou Mbaye mooy ki ñuy waxtaanee nii. waaw moom mooy jëmm ji ñu waxtaanee. Mhm. moom tey jii moom moo bokk ak Cheikh Samba Diarra. Mhm. bokk ak maam Altëgg mii maam sëñ Ma Fatim mi mhm. euh, bokk ak maam Modou Mbaye euh, maam ma Ndiémé bokk ak tamit maam Ali bokk ak maam Aram bokk kooku nag noonu la taxe woon waaye maam Cheikh Sadio dafa bokkoon ci ñi nga xam ne si dafa bokkoon ci kummalul awliyaa yi xam nga nitu yàlla yi yàlla dafa dogal ci ñoom ñu ñu daj daj daj dëpp Euh, jëmm jooju nag bi nga xam ne si def na loolu euh, waxoon nan am na ku ñuy wax tamit ma ku bokk ci moom koo xam ne si jëloon na ci Lingari Kajoor yooyu ñu koy wax maam Daraw Mbay maam Daraw nag danoo wax ni ci dafa bokkoon ci nitu yàlla yi nga xam ne yàlla da ko mayoon xam-xamu reen xam-xamu cosaan nga xam ne si da cee xamoon lool lu bari loo xam ne daana liggéey amit yàlla dogaloon mu nekkoon aalim bu mag doon koo xam ne sam dafa sunniyu woon dafa jàngoon alquran am xam-xam ba noppi am yërmandi wax na ni nag yàlla dogal ci moom ci wàllu lasraar fu nekk lañ ko fa daan dikkal moom maam ndaraw moom moo taxoon ñu naan wax ndaraw boroom fab leen moo tax ñaare ku maam maam ndaraw ak Cheikh Sadio lu nu bokk ñoo bokk benn baay benn baay bi leen jur waaw mhm. maanaam ndaraw borom fab leen boo déggee ñu koy wax maanaam dafa bokkoon ci ñi nga xam ni si fu ne la ko doon addiye doon jugale di ñëw ci moom ak weexal ndax doon na liggéeyal guerrier yi nga xam ne si ñoo doon xare loolu ñu wax jàmbat leen ko jàmbat leen lu ñu daan sol la loo xam si kii ñi ñiy xare ñoo ko daan sol am na tamit lu mu daan liggéey loo xamee ne si wokkub lam la tuddoon xeet la yoo xamee si ñoom ñoo ko doon soxla waaye moomu dafa bokkoon ci ñi nga xam tamit maanaam yàlla dafa dogaloon mu amoon xam-xamu lasaraar waaye yàlla dogal li daan ñëw ci moom lépp da doon jël ko joxe moo tax ñu naan ndaraw borom fableen nga xam ne si moom dara daawul taxaw ci moom loole nag ba nga xam si dem na ba ci biir am na li tax sax loolu taxaw ndax ca jamono joojee am na benn lingeer bu ñuy wax njare biram jéemi dafa amoon góomu robaale góom bu metti lool fu nekk ñu dem fa waaye ban demee ba mu jàgg danoo xalaat seen xel ñu ni dégg nañ ko ñuy wax maam ndaraw daal war nañ ko seeti bi ñëwee ci moom mu xëy mu xëy suba ñu leen mën nàkk waaye ni ma koy faje mooy su ma faje ba noppi dangeen ma koy jox addiya ñu nangu loolu mu ñaanal leen mu daal di wér ñu jox ko ko muy lingeeru kajoor boobu nga xam ni moom la dencoon euh, kookee nag digganteem ak moom euh, am na ca ak njaboot goo xamee ne si Euh, ci maam mu tuddewaat ko maam ma njéeme mu mag male amaat ca tamit ku ñuy wax maam ëltëgg ñooñee tamit ñoom boo xoolee ci biir tamit noonee lan taxawaat ci seen biir euh, waaye maam Cheikh Sadio doon kenn koo xam si tamit moom euh, yitteem yëpp mooy wër Serigne Touba. yitteem kon bu ma déggee sa waxtaan maam Cheikh Sadio. Mhm. ci Aboubacar as-Siddiq foofu mooy mooy mooy càllale gi waaye Ibrahima Khoureyssi ci boppam mooy maamam. mooy maamam Ibrahima mooy maamam. Euh, bi nga xamee si tamit loolu am na waaye boo gisee ma lay tàllal noonu dama lay bëgg a xam ne maam Modou Mbaye kum jur waliyu la hmm. yàlla dafa dogaloon ci moom mooy dafa wax ni doom ju góor ju mu am waliyu la doom ju jigéen bu mu am biddiw la ñoom yàlla dafa dogal ñun ay nit alquran kon maam Modou Mbaye ci Ibrahima Khoureyssi la bàyyi fa la bàyyi ko mooy hmm. soqi ki nga xam si mooy ndax moom euh, Cheikh Sadio Assalis moom mooy maamam hmm. moom mooy ki nga xam si moo ko meññ looy foofu la jóge waaye bi ci biir loolu tamit moom nga xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp lépp loo xam si amoon nañ ko ci yàlla subhaanahu wa taala xamoon na ni doon doon gëstu di jëm ci yàlla waaye leeri sëñ Tuubaa li ma waxoon ni min nuurihi kullu nuurin saatiun bisana nuuru nujumi wa nuuru shamsi wal xamari dafa ne leer yëpp ak projecteur yëpp ak lampe yëpp ñu ngi leer loo ci jant bi waaye jant bi ki ko sarse mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo taxoon sëñ Tuubaa waxaat ni kaana yasruhul gamaamu yaral waraa wal amaamu wa aynuhu kaanat tanaamu wa xalbuhu lam yunami hmm. Cheikh Ahmadou Bamba nee na leeru Seydina Muhammad moo taxoon kii di bàyyam di Abdallah jiitu ko kuy doomam nag fekk dem nga ba mu des fatimatu bintu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaayam mi nga xam si mooy amina yoroon ko tamit leer ga mu feesoon ci moom moom sayduna muhammad rasulullah moo taxoon sëñ Tuubaa ni bu rasulullah di dox am na lu koy mbaaral kaana yazuruhul gamaamu ñu ne ko lu tax mu ne bu fekkoon ne amul mbaar muy mbaaral loolu nga xam ne malayka yi ñoo ko yor muy xamalatul arshi kon asamaan si day nee na nag yaral waraa u wal amaamu day gis ci kanam gis ci gannaaw kooku la maam Cheikh Sadie doon seet maam Cheikh Sadie nag bokk ci eh, góor yàlla yi nga xam ne sunu borom dafa dogaloon mu yor benn salatu ala nabi boo xam ne si mi ngi jóge woon ci sayyiduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko faatimatu bint rasulullah sallallahu alayhi wa sallam càlla la googu di dox di dox di dox di dox dox di dox ba ñëw ci maam astawaalo mi ci naawel loolee nga xam ne moom la wax ni doon na ko liggéey ba jox ko maam soxna jaarata la xam bu so mu indaale ko kër Mor Anta Sali loolee la yoroon moom maam Cheikh Sadio jëlee ko ci maam Modou Mbaye mu mag mi nga xamee ne si moo liggéey loolu. Euh, ma ma maam Cheikh Sadio way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen nu tudd. maam Modou Mbaye mooy waajuram bu góor. soxna Ndakkan Ñang mooy waajuram bu jigéen. seen cosaan ñu ngi kokki. ñu ngi mujj fii kokki gi nga xamee si mooy kokki njóge SDE gii. yàlla dogal ñoom foofu lan dëkk. waaw maam Modou nag dafa bokkoon ci ñi nga xamee ne si li ko indi kokki nag ba tax mu dëkk foofu dend ak seex Ibra Sarr Njaañ maam Malick Sarr la. maam Malick Sarr moom ak sëñ moo jur sëñ Ibrahima Sarr Njaañ mhm. mi nga xam ni moom la sëñ Tuubaa doon jazaaka yaa xellu Ibrahima Mawlaaka googu mhm. mhm. maam Malick Sarr dafa amoon dëkk bu mu sañcoon te jamono jooju buur yi dañuy bette ba noppi ànd ak doole jamono boobu nag ñuy waaj pour ñëw ci ñoom dal ci seen kaw xamal leen ni bis sàngam dinañ ñëw ndax buur yi jamono boobu danoo am doole duñ la bett dañuy xëy suba rek xamal leen ne bis sàngam danañ la song ndax doo am foo jaar bis boobu nag wax nañ ni ci la ñëw ci maam Modou may wax ko ko jamono boobu nag am na lu mu daan bind loo xam ci perkaal la ko doon bind dafa wax ni bu ñu demee ba nga xam si war na noo ñëw bu ñu xëyee suba dañ koy bind jox ko ñaari góor kenn téye fii kenn téye fii bu ñu ko tàllalee ñoom bu ñu gisee mbind ma lan daal di ko ci la ko wax nag ni ko su ma sañoon nga bi dëkk ci sama wet ci la ko dëkkal foofu mu sanc kokki nag nekk fa diggante foofu ak njaañ kooku bokk na ci ñi nga xam ne si tamit maanaam euh, seen taxawaay moom laa la wax ni la moom lu mu am wàllu la kooku nag moom mooy waajur maam Cheikh Sadji ah tabarakallahu mi noonu euh, kooku mooy way juru maam Cheikh Sadji mbay di Mamadou mbay dégg ngeen tabarakallahu mbokk yi euh, fi nga xam ni fa la cosaano ci diggante euh, Aboubacar as-Siddiq waaye tamit euh, jaar ci Cheikh Ibrahima Khouraysi ñi nga xam ni ñëw na ba Ndar ndeysaan jël fa soxna waaye tabarakallahu Cheikh Sadji mi ñuy waxtaane dégg ngeen ci biir waxtaanam nii amoon na yeneen Sadji yi waaye Cheikh Sadji yi mii moom mooy mooy mooy ki Serigne Touba Euh, kokki nag mooy cosaan bi waaye bala ñu àgg ci Serigne Touba euh, mi nga xam ni bi mu ko gisee la gëlëm maanaam lu ko yóbbu ci Serigne tubaa wala dafa jékki-jékki rek fekk Serigne Touba leeru Serigne Touba la doon topp jóge kokki di ko topp ba ñëw Louga mhm. euh, bi mu ñëwee ba Louga ba tamit mu xam ne leer gaa ngi ñëw ba tey mu koy topp di ko topp ba ñëw Ndar bi mu ñëwee la gisatul leer gi mun xam ne kon leer gaa ngi fi ci la laajte rek ñu ne ko am na kilifa gu mag gu fi nekk kër maam askamara jamono boobu yoonu murid taxawul mhm. nga xam ne Cheikh Sadio bi muy jëflante ak sëñ Touba yoonu murid taxawul boobu sëñ Touba du xaadir la yor maam As Camara mii moom moom moo doon sëriñ bi nga xam si moom moo ko jox suñ Mor Anta Sali mu ñëw foofu wax na ni fi mu ñëw ndax am na ay version yu kon kon Cheikh Sadio fekkul ba ba coow li ba gars yëpp Cheikh mu doog a tàbbi ca Cheikh yu mag la bokk mm. bi muy gisante ak sëñ Touba sëñ Touba da ko xool mu xool ko mu ne ko ismu ko mu ne ko Sadio ci kër maam As Camara mun ko ana foo nekkoon ba saf yàlla li ko safe ana looy liggéey mun ko xanaa <laughs> jàng ak tudd yàlla ak jàng alxuraan mun ko saajey fii ne bu xaju fi oh. waxal li xew ana kàggu yi jamono boobu kàggu yi ndax sëñ Tuubaa ko am sañ-sañ la mun ko ana kàggu yi mu indi kàddu yi teg ko mu daal di ubbil moom boppam sëñ Tuubaa daal ne roset tur bi teg ne ko ana noo koy defee mun ko danaa ko liggéey ayu bis àgg ci suñu borom sëñ bi woo ko laaj ko sondeel mu jox ko sondeel mu bind ci weneen tur wu ne wax abajat ni ko duggal nga liggéey ko mu liggéey ci saa si daal ci la ñëw jox boppam sëñ Tuubaa ca la ko sëñ Tuubaa wax ni ko jaawastu naasi wa maa fi aydi naasi ilaa rabbi naasi wala maa wasaltu ilaa rabbi naasi aataaniya nafu naasi wa kafane dur naasi oh. daal di ëlbatiku nag ni ko saajey mu ne ko naan mu ko xalima ga ma yàlla binde ba mu la ca bindee la ko dam oh. moom Serigne Touba moo ko wax loolu xamal ko nag ni ko maanaam àgg nga ca kaay ba ci la ko téye ren ndax xam nga ni sëñ Touba kum dem ba jël xalimaam jàkkaarloo yow ku dul rasulullah du yàlla sëñ Touba tax wax ci yaw kooku xam nga ne am nga wàccuwaay mm-hmm. Sadio nag nga xam si sëñ tubaa amoon na ci moom wàccuwaay bu mag a mag a am na li bu siiw boo xam ne ñu ngi koy faral di wax lu wér la xàqan la mhm. ci njaareem mhm. euh, li ko waral moom mooy ak korité la woon goo xam ni sëriñ tubaa moo koy waajal war a génn julli bu mu génnee ba def xutba ba noppi di tari fatiha bay fatiha bi daanu sayyiduna jibril ni ko xus haza haddit min rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fekk Seex Sadio yi mi ngi ci sàppawu jëkk wi ci la daanu yuuxu bi julli gi jeexee dafa ëlbatiku ne ku ko def maam Malick Ndiaye ni ko bu nu amee ndigal wax ko mu ne ko waxal mu ne ko saajee mu ne ko ana li xew mu ne ko bi faatixa bi daanu Seydina Jibril dañ la jëyi ni la lii ci rasulullaay la jóge mu ko la waaye ci la ko wax nag ne ko yow faaw nga dem caabi caabi mooy Bambey dafa ne ko nag nga xam ni kon moom borom xam-xam yi dañoo yéeme da koo wax ni ko da ngay génn dem ba fi nga xam ni fa la keppaaru jumaay njaareem yem hmm. Cheikh Sadio dox ba Bambey googu ni sëñ Tuubaa fii la ma doon wax suuf saa ngi nii daal koy tibb bari waa na dëkk yoo xam ne si sëñ Tuubaa sanc na ko wala mu loo ko ay nit euh, suuf sa la daan tibb ñu jox ko Cheikh Sadio yi mu xool ko ñu xool jamono ban lañ ci war a dëkk ak ñaata jamono lañ ci am foofee daka ne ko nag fii ngay nekk nii ci ci Bambey gi ku dul man du cerno ku la soxla na la fekk si waaye su ma la soxlaa wala cerno danañ yebal fas wu la jël si foofee yebal na fa doomi Sëriñ Tuubaa yu bari ak i seexam sëñ Mour Moustapha fekk na fa maam Cheikh Sadio Cheikh Amadou Bara Cheikh Mour Fadal sëñ Basiiru Mbàkke ba ci ñëpp njaboot ba ci seex yi ci boppam képp kun ciy samp tamit dana la yebal ci seex yi nga ñëw foofu taxaw kon moom bokkoon na ci wàccuwaay moo wëllëre woon woon ak sëñ Masamba Mbàkke sëñ Masamba moom li ma wëllëre woon ak moom ndax sëñ Tuubaa dafa woo sëñ Masamba ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko seex Sadio yéene ji mu amoon ci moom taxawu ko taxawu njabootam waaye jote gi xat waaye boole naa la ak moom looloo taxoon seex yi wëllërante ak moom daal koy tuddee caatam moom muy sëñ Masamba Mbay bi nga xam ne moo waral bis tabarakallah euh, euh, mbokki uh-huh. euh, téléspectateurs yi nga xam ni yéen ñu bàyyi xel seen mission bu mag bi di kem kéemtaanu mag ñi tey ni leen ko waxee woon ñu ngi ci kër Cheikh Sadji dégg ngeen ni ko Cheikh Ibrahima mbay leerale Cheikh Sadji mi nga xam ne bi muy ñëw ci sëñ Tuubaa fekk na ndeysaan mu duyu ci leeru boromam waaye bi bi mu ñëwee gis nga sëñ Tuubaa kéemaan gi mu feeñal ci diggam ak Cheikh Sadji ni ko noo def ba saf yàlla uh-huh. ba mel nii nga mel ci sa borom na ko Cheikh Sadio tontu waaye gis nga fi Sëñ Tuubaa jaar moom ni ko ana kàggu yi bi mu génnee kàggu yi euh, bi Sëñ Tuubaa ubbee tur wa mu ta daj ba mu génne rek ni ko nu koy defee yaakaar naa ni Cheikhul Khadim mi ngi noonu waaye Cheikh Sadio tamit euh, mu ngi noonu euh, tabarakallahu Cheikh Ibrahima mbay mi nga xam ni kenn la ci ëttu kër Cheikh waaye tamit tudd na koo xam ni doomu Cheikh Sadio la ñu di ko wax Cheikh Massamba Mbaye doonoon doonoon borom baati doonoon koo xam ni lu mu musaana wax rek day kookee nga xam ni tabaarakallaahu dëgg-dëgg waxtaan wi dafa jëm ci moom muy Cheikh samba doomi Cheikh Sadie mm-hmm. euh, Cheikh Massamba moom ak ak ak ndawam samba Massamba diggam ak Cheikh Sadie Cheikh samba euh, euh, taxawaayam ci yoonu murit Cheikh Massamba la ko mayoon bu musaani ñaan suñu borom dogal loolu. Mm-hmm. Cheikh samba moomu maanaam maanaam mbiri ma samba xus ci xus goo xam ne yaakaar naa ni ñii seetaan danañu bég. Mm-hmm. ci ci ci waxtaani Cheikh Massamba ndax. yaakaar naa ñi ci ñi ci réew mi ak bitim réew mhm. bu nu seetaani yëf yi euh, ñuy waxtaani Cheikh Massamba ku ci yem mhm. yaakaar naa boo boo bëgg zappe sa doo zappe ndax ndax fi mu jaar ak ñoom ci ay kéemaan ak yooyu mm, jërëjëf sëñ Modou xam nga Cheikh Massamba mhm. day kenn ci sëñ ndax xam nga kooku moom kii mujj ci doomu Mamour Anta Sali te sëñ Mamour Anta Sali wax na ni bi fiy jógee bàyyi fi Cheikh Massamba soxna Issa Dieye mi nga xam ne si moom mooy ndeyam soxna Issa jóob mooy ndeyam ndax moom la gaydeel xujjuku ma xëy sira xujjuku ma ñooy ay maamam waaw soxna si Jóob moomu nga xam ne moom mooy waajuram nga xam ni Lat Joor moo ko yoroon Lat moo yoroon soxna su tedd soosu jamono boobu sëñ Touba mi ngi nekk ci zahir ci tout tànk ànd ak suñu Mor Anta Sali muy ñëw muy attel Lat Joor mu gis ko mu xool ko mu ne ko soxna si ana ko ko ki mu ne ko kii day ci soxna yi Lat Joor la bokk mu ne ko wax ku mu bàyyi ko ndax du kii dafa war a am waliyu te moom ceddo la mu ne ko moom du ma ko wax sëñ tubaa moo bàyyi ba nuy dem mu waxal ko ko boppam bi mu fi jógee mu wax ko ba noppi ci leen ko jël nag jox ko sëñ Mor Anta Sali mu am ci sëñ ma Massamba mbakke mi <laughs> sëñ Massamba bi muy gën a jamono fekk na boobu sëñ Mor Anta Sali mm-hmm. jóge na fi jóge na fi lu yàgg ba nu dem ba war a tolloog miraas mu ànd ak sëñ Touba nekk ci àll bi ñu wax ko ne ko na ñëw ñu miraas mu ne moom day lépp lu mu ci am moom sëñ tubaa jox na leen ko waaye nan bàyyi cërub góor kaamil bi nga xam ne moom la yoroon tamit nga xam ne ci la ko ko kaamil ba maam Cerno Ibra Faty la ko jox ñu ne kon ginnaaw moom mënta ñëw kay te bàyyee nañu lépp cërub góor bi la na fekk sëñ Masamba lay jox wàllam wax nañ ni bu mu moo dem ca dëkkale mu ni bëreet ni ko na ko tudde bàcc Anta Jépp moom moo bokk soxna soxna su tedd soos di soxna euh, soxna xujja soxna Isa mm-hmm. euh, sëñ Masamba moomu nag moom mooy ki mujj ci doom yi moom wax na ne sëñ Touba bind moo ko maas sëñ Touba moo ne wax nag ne lu ma bind te sëñ Masamba maasu ko mi ngi mel ni jëmm ju amul ruux daana wax tamit ni ku dem ndar mhm. bédd dellu si jaaroo ci Cheikh Abdou Karim Samba Diarra mel na lu demoo ndar ndax baatin ba amu ko mhm. waaye jëmm jooju noonu la mel sëñ Tuubaa moo ba génn ku dugg ndar ba génn demoo ci barabu Cheikh Abdou Karim Samba Diarra demoo ndar sëñ Tuubaa moo doon wax loolu <laughs> waaye moom looloo taxoon Cheikh Ibra Diol Machar waxoon ko wax ju rajo ji ni ko faaxal Cheikh Samba Diarra Mbaye ak Cheikh Sadio lu ñu bokk ñoo bokk ndey ak baay mhm. yi moo ko mag mage na ko fukki at ak ñeent am ñu wax fukki at ak juróom waaye li wér te wóor moom moom mooy magam moo ko indi ci Serigne Touba. moom Cheikh Sadio mhm. bi ko Serigne Touba defaree ba noppi la jëli rakkam jooju indi ko. ci Serigne mhm. Touba waaye ginnaaw waxtaanu Cheikh Sadio la. dëgg la bu ñu duggee Cheikh Samba Diarra rek day daal di indi beneen mbir. Mhm. waaye Cheikh Massamba mi ngi ma wax noonu. bi yàlla dogalee ci moom mu mel noonu nga xam ne si jëmm ju yéeme la Serigne Touba ci boppam dafa wax ne lu ma bind te maas ko day mel ne jëmul ji amul rool loolu nag dafa yéeme looloo taxoon Cheikh Ibra Diop Masar waxoon ko wax ju siiw jooju ni ko faaxal afa diilu ahlil juudi wal karami masamba mbàkke kasirul ilmi wal xikami fatan fatinun labibun xaa'isun nadbun xarisun ala taati wal xidami mm. wa in kaana asxara al xaddima maan fa himmatu min akbaril himami mm. jëmm jooju noonu la mel sëñ Masamba moomu nag moom la sëñ Tuubaa boole woon ak Cheikh Sadio yi moo tax mu tudde ko caatam moomu te moom mooy caatu Mamour Anta Sali kii di caatu sëñ Cheikh Sadio yi ñu wëlërante lool mm. ba nga wax ni sax bi fi Cheikh Sadio di jóge ci Bambey sëñ ma Massamba Mbacké moo ko taxaw ànd ak moom yóbbu ko Touba nga xam ne kon lu yéeme la mm-hmm. caata moom nag di Cheikh Massamba Mbaye moom da daan wax ni man maay Serigne Fallou kër Serigne Cheikh Sadio moom lu mu mas a wax rek kunam googu bu la ko waxee bu la tàppee nga am mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam si defe naa ni xam nan loolu lu wér-wér loo xam ne si su masaana dugg noppam rek dafa daal di am mm-hmm. loolu nag beneen mbir la moo xam ne si yàllaa ko dogaloon ci moom mu doon wàlliwu leet boo xamee ne si ñëpp la mën a jaxasool tey jii sax ay gone mën na koo yëngal ci barab mu doon koo xam ne si dafa fees dell suñu borom fees yàlla del del del am nag yërmande ci ñëpp da daan xool mbooloo mi ba mu jàgg muy tuur ay xéewal comme ni Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ni kenn du ko fàtte jamono jëmm jooju la yoroon nga xam ne doxalinam ci biir nit ñi moom ñëpp am jàmm da wax ni lépp loo xamee ne si euh, nekkul sayit te dëgg-dëgg jalul nga ma koy wax ndax soo ko waxee suñu borom dana ko def su ma cay dugal sama kàddu muy daal am foofee la tolloon suñu borom Cheikh yi nag defoon ko ak jagleel gu mag mu taxis goo xam ne dafa nekkoon ci moom ndax moom yàlla dafa dogaloon mu amoon yu yéeme moom Cheikh Sadio xam nga sëñ Modou. Mhm. Cheikh yi euh, dafa am loo xam ne sëñ Touba moo ko partagé muy ñu jébbalu ci moom ci ay jinne ndax mhm. ku dul sëñ Touba. ku dul Seyduna Muhammadu Rasulullah Seyduna Souleymane ba jàll. Mhm. sëñ tubaa moo fi am ay talibé jinne moom moo fi am ay taalibe jinne waaye ñi ko rafaatale ci biir ñi nga xam ne ñoo yoroon ismullahi al azam Cheikh Sadio ci la bokk tàggataloon ko benn jinne bu ñuy wax xuduurun soo demee ci suratu saba da ngay dégg mu ne wali suleymaanu réexun غدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين الخطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ من أمرنا نغم عذاب السعير يعملون له ما يشاء من المحارب والتماثيل والجفان والجواب وكل راسية اعملوا آل داود شكرا وخليل من عباده الشكور دكران تاغات ديكو ليغيلو موي ديف na Seydina Souleymane doon def jinne ñi nga xam ne dañ ko doon liggéeyal guddi ak bëccëg loolee nag ndimbal la moo xamee ne si mbir mu yéeme la waaye sax ma sàmba buñ ci dellusiwaatee rek moom mooy ki mujj ci sëriñ doomi sëriñ Tuubaa yi eh, ci suñ Mor Anta Sali yi di rakk ci sëriñ Tuubaa waaye Cheikh Massamba mbay mii noonu la mel ci Cheikh Sadio yi nga xam ne si tamit eh, danoo tase ci ay kale yu bare bare bare bare waaye loolu xam naa ni eh, sëñ Modou la ko cay mottali nag danañ jax mu Mouhamadou Tayiru mu dugg ci tuuti ci waajuram mu tedd woowu nga xam ne moom ak dundam lépp tawféex la bis bii nag moo ko taxawaloon mm-hmm. di ko delloo njukkal waajuram mu tedd woowu Cheikh Sadio mm-hmm. di ko ci jàngal alquran di def ay salatu ala nabi da ci woo ay bokki boppam yoo xam ne dafa bokk ak ñoom sëñ Mamadou Baye ñu ci saafante ndax loolu euh, dafa nekk loo xam ne islam da ko bëgg. xanaa xanaa salatu ala nabi day day miiru waa kër Cheikh Sadji ak yeneen. ah waaye loolu baatin la. <laughs> ndeysaan waaw yooyu ak yeneen waaye yooyu baatin la ndax xam nga wàllu kurus. dafa nekk lu yéeme. loo xam si ñoom yàlla dafa dogaloon ñu mën mu am ko lool. Euh, yàlla tàggataloon ko ci ba nga xam ne si da ci doon liggéey liggéey bu bëree wax na ni fi ñu toll nii ku dul Cheikh Sadio ci kër sëñ Touba sañ bi daggal na la barab boo xam si da fa liggéey muy tool waaye tool yi Cheikh Sadio kurus la ak der. ndax ndax wàllu kurusoo ak der woowu ndax njaboot gi am nañu ci tarbiya ay nit ba léegi. yaatu na lool yaatu na lool. boo hmm. duggee ci biir rek di nga ko gis <laughs> yaatu na lool. lool waaw. tabarakallah ñu ngi euh, foofu rek xam naa sëñ Modou hmm. la ñuy daal lay delloo kàddu gi ndax xam naa ñi ci war a jël kàddu yaatu na euh, di ñaan nag bis bii nga xam moo nekk suñu kanam yàlla ñu ko fekk ak jàmm auzu billahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahiim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wa ala wa sahbihi wajjahal nii hibaadaka wa habduhu sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi waa plateau bépp sëñ Mour ñu ngi lay ziar baax. jërëjëf di la gërëm ci eh, dalal bi. Mhm. di ziare Cheikh nga Fatim Mbaye di ziare Cheikh Ibrahima ak sëñ Ali sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh di ziare Soxna Ayda Thioune di ziare ñëpp. waaw sëñ Modou Cheikh Massamba mm-hmm. yàlla daa dogal mu nekk caatum Cheikh Cheikh Sadio yi mm-hmm. yàlla dogal mu yàgg ci jal bi ndax toog na vingt sept ans ci mille neuf cent vingt cinq la gën a àdduna waaye mi ngi ñeloo mille neuf cent deux mille quinze la ñeloo mm-hmm. mille neuf cent quatre vingt neuf la toog ci xalifa gi ba deux mille quinze muy vingt sept ans waaye suñu Modou ku suñu Samba neex naa waxtaan ak neexul waxtaan ndax ku doy waar ku doy waar la maanaam koo xam ne da ngaa ba maanaam yow murid waxuma murid sax ñi nga xam ne dañoo nekk dañoo bokk ci maanaam ci tarixa maam Alaaji Maalik sax dañu laa safoo bëgg la boo demee mbir na gent dëkk ba xam ne ca boor ca boor ngaay dañ daañ ñëw mboora sama kanam man booba maa ngi fàttaliku sunu kër boobu ay sàkkat la ñooy sàkkat kër gi mu àgg defar ko néeg ko ñu xam lépp delluwaat mbir na gent ci ay rijaal nan de waaye maanaam safoo nga ko safoo ak bàcc gi mu leen woon ndax sëñ bi da lay loo xam ne dañ mukk ci àdduna mm-hmm. danga nga ñu mën la nangam baa nga ñëw dëkk ba maral maanaam tawu ni mu ñëw leen lu fi waay bëgg maanaam lu fi waay bañ maanaam mu tooy ko fat dëkk bi tooy tooy xëpp kon loolu sëñ bi maanaam ay mbiram neex naa waxtaane neex la waxtaane donc doy waar bëgg njaboot ku yaatu ndax bisam bii mu koy def maanaam lii ndigal ñëpp naa si ma teer waaye sëñ Moustapha Bachir moo ko jox man sëriñ baa ma dégg moom wax ma dégg man kenn ci luuma ndax booba maa ngi mboor mu daan gàmmoo ji njaareem ci sëñ Moustapha dam bay jamono sëñ bi ni ko comme yaay gàmmoo fii ci man waaye jox naa ndigal nga war sa gàmm ak baay ca mbooro waaye na nga tàggu ma tayir seex ma tayir euh, magam la magam boo sëñ ma tayir nañ fi mooy xalif mooy xalif booba mhm. waaye sëñ Moustapha Bachir na nga tàggu ma tayir mu ñu waxtaan ak sëñ ma tayir mu jox ko ci ndiggal mu def gàmmu Mbooro gi mhm. yaakaar naa bi mooy fanweeri at ak ak benn ci ren ci lu ñu xam boog lu ñu fekk ñun mhm. waaw fanweeri at ak benn maam ci ren euh, sëriñ Xaadim Mbay di ko taxawee ñu ngi ñaan suñu borom guddal fanam mooy ko wér ndax ni mu war a taxawee njaboot gi yëpp taxaw na la dëgg yàlla macha allah ñun daal ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi di ko ñaan yàlla guddal fanam bu yàgg ko woote ñëpp yàgg wuy si waaw di sëñ Moustapha Ibrahima waxoon na ko Jowaalo ndax lépp mooma ndax mooy xalifa maam Cheikh Sadio di ziare sëñ Moustapha xalifa maam Samba Diarra Mbaye mhm. ndax Cheikh Sadio Samba Diarra moom moom meew suukar la moom mën a wax kii bàyyi kee kon bu nu waxee Cheikh Sadio faaw nu maanaam woot waa kër maam Cheikh Samba Diarra ñëpp xam ne bis bi seen bisal waaw suñu muur. Eh, tabarakallahu eh, mi ngi noonu. Eh, waaye bëgg na nga wax nu Cheikh Massamba fan fan la gën a àddina fan la gën a àddina Bambey Bambey la gën a àddina hmm. loolu mën a wax ci dundam ci ci fi mu jàngi alxuraan waaye waaye eh, nax nax ndax ndax fekk nag dundug baayam eh, loolu ci loolu la ci loolu la ci wax loo xam ne mën nga nu ko cee xamal maanaam euh, mi ngi gën a àdduna Bambey waaye mi ngi jànge Gandigaal sëñ bi bàyyi sëriñ Bay taw Cheikh Sadio moo ko yoroon Gandigaal moo ko yar moo ko fa jàngal yar ko waaye Cheikh Sadia yi ci gàttal ak li ma dégg mu ngi nelaw 1933 suñu baa ngi ñu nelaw àdduna 1925 kon fekk na ay at ay at tuuti daal. <laughs> bëriwul la ci fekke waaye mosuma dégg xam nga daa bëri baatin moom borom baatin la mu ni ma sama sama mun ma mosuma gis Sëñ Tuubaa de loolu la ma wax waaye dégg naa ma wax ak sama maam sama baay ci biir néeg bi ci biti ma ne ci biir néeg bi. xam nga lu baatin la. Hmm? suñu baay suñu bàcke moom nit ni moom su maa gis sëñ Tuubaa waaye dégg naa mu nit dégg naa mu wax ak sama baay ci biir néeg bi ci bitti ma ne ci biir néeg bi ngir wàllu suñ bi daa ba kenn ku ne da nga ñëw mun la nangam ni ko nangam ngay am ca loolu moom ca kenn ku ne nag ñi ci biir Sénégal la ñi bitim réew kenn koo def na loo defal na loo xam ni maanaam mënoo ko fay wallahi du caaxaan ndax daa borom baatin lool boole ko oyof xam nga nit nit bu oyoful boo oyoful loo dara suñu daa boole oyof ak baatin ga ak yaatu ga xolam rafet mu yor xol rafet moo tax bisam bii maam noonu la mën a mel dëgg yàlla lu la yéemoon ci moom en tant que koo xam ni doom la euh, Cheikh Massamba di sa waajur waaye tamit diggam ak euh, kilifa yi nga xam ni euh, ñoo fi nekkoon ndax Tiwaawan jigéen na mboro te it euh, moom euh, fekke nag jamono doomi sëñ Tuubaa maanaam loo ci mën a wax ci diggam ak njabootu sëñ Tuubaa ci seen jaxasoo waaye tamit ak yeneen turux yi waaw maanaam sëñ bi Cheikh Abdoulaye moo ko yar jaar na ci moom doomu sëñ Tuubaa moo ko yar moo ko ni woon euh, sëñ Masamba mun ko mun ko mbàkke mun ko kay gi muñ toogee noonu rek mun ko dana neex dana dana neex dana yàgg sëñ bi vingt te boo mbayeen jamono yooyu benn a fay dee jamono suñu ma tayir ak ñeneen ñu ko jiitu benn nga fay dee suñ bi fi indi maam juróom-ñaar nag ak juróomi nag suñ boo ko fi boo demee da yokk fukki nag ak ñeent ko faray te lépp ci ak maanaam doxu Serigne Touba doxu Cheikh Sadio la ñëpp la amoon ndax euh, Serigne Mansour bi nekk xalifa daana ko wol mu ñëw mu génn am mbind ko mbind mi si mbindum bàyya sëñ daanu jóge dem dem tim teewoon sëñ yéen daf ba ngoon sëñ Mansour génn mbind moo xam ni sama maam Cheikh Sadio moo ko bind kon loolu jaxasoo la mhm. ak yeneen ak ñoo xam ne jaxasoo na ko ak euh, kilifa kilifa diine yëpp waaye li ma gënee ci moom mooy oyof gi mhm. sëñ bi sëñ Modou musuma mhm. gis nit ku oyofee noonu wallaahi bëgg na doom bari na baatin oyof na nit mën na ko yendal fii yow ak suñ Tuubaa te boole ci gis gan gan gan da ngaan toog mbooro sax am war a xew maanaam nangam mu leen tey bis tàngam dara dana xew dara dañ gis dara balaa ma juróomi minute loolu am <laughs> wallahi ku bari baatin la woon ku ñëm ak njaboot ku bëgg Cheikh Sadio ay baayam tudd na ko ay doom yu bari Cheikh Sadio waaw tudd na ko ay doom yu bari yoo xam du benn du ñaar déedéet am na am na bu ne Touba am na bu ne Njaareem ak yeneen yoo xam doomi Cheikh Cheikh Massamba la seex ma Massamba taawam sax Cheikh Saliou a ko tudde taawam yàlla daa wedd waaye Cheikh Saliou yéen a ko tudde ndax bëggum bëgg baayam maanaam moom daal alaaji baar la suñ fallu rek daa bëggoon maanaam Cheikh Saliou ba boo ci waxtaanee ñaari ñaari mbir dong mu tur ay xéewal ndax cofeel gu am ci moom ci la ko boo ci la ko ci la ko booleeg maama Demba Seck mu Mboro mm-hmm. sëñ bi jógee gànd gaal ñëw dëkk Mboro maama Demba bi ñu koy sama maam di booleeg sama baay boobu sëñ bi ay juróomi at la juróom-ñaari mm-hmm. ci saayir ci la ko boole moom ne ko bool nan àdduna àllaaxira moo waral ma dem ba bi mu ñëwee maanaam mboor dëkk fa wutal sëñ bi maanaam kër kër gi na fa mat 40 ans sëñ bi dëkku ci kër gu mboor gee ñeent fukki at ci mën na ko waaw ca gàmm gii ñu woote sëñ bi du ko woote mbëcc njëkk def def am xar xar la ci bi moom Cheikh Cheikh na Samb déedéet maam ma dem ba hmm. kon kooku maanaam bu ñu waxtaan sëñ Massamba faaw nu fàttali ko waaw ndax def ji moom daan def sëñ bi saa bu nekkee mboor daan génne këram suba ñëw siyaar sëñ bi delluwaat boo fekk sëñ bi sax day fekk sëñ xaarim baa fekk fa njaboot kenn rek xelam da xolam xolam day sedd euh, gannaaw émission bi tànn mag ñi la tudd te Cheikh Massamba doon kéemaan la loolu mën a loolu mën a wax ci ay kéemaan yoo xam ni feeñaloon na ko ci ak dund xam nga li ci gën a yeewu mooy leen moom sañtan doon ko man ak baatin hmm. bàyyi daam sow la ko wax te saam sow bàyyi daam mun ko mbàkke mun ko kenn mënumaa teen doon xalifa ci fii laa koy doone te boobu doonagu ko déedéet boobu yàgg boobu suñu ma téerañ fi waxaat ko bàyyi mu sekk mii bàyyi cheikh mii bàyyi mu sekk bàyyi mu nen ma dooma tëdd ba guddi mu ni bërét mel ni lu tiit nenam ñu ne ko suñu baa jàmm la mun ko Modou mun ko Mbaye mun ko kenn mënumaa toon doon Cheikh Sadio ci da ko fekke Modou naa toog lu yàgg nga def fi loolu nag maanaam sañ-sañ la koy def ak baatin bàyyi daam sow koro bi mu bi mu cimetière euh, nelaw àdd àdduna sëñ bi daa xëyee ngaay dem saam sow fekk soxnaam si ne ngaay soxna xadi sekk bi ñu ñëwee ndaw la ñëw ni ko cimetière kat moo làqu dem bisu àll ba cimetière nelaw ci guddi ci la génn fekk sëñ bi dem saam sow soxna xadi jël watir foofu dem saam sow saam sow ngaay fekk fi bàyyi daam ñëw ni ko ah am na la xew de cimetière day lan wax ni làqu na mun ko sëriñ baa ngi faaye naa fexe maanaam ban togg añ yi xaw ma mag njëkk ñi rek togg añ yi maanaam tey ci penc mi génn àddi yi jox ko sëñ bi sëñ bi ba léegi maanaam kenn tagg ko ci gémmañ gi rajo Dakar jàpp rek ba tàggee isti mu tër gémmañ gi bàyyi ko am na loo waxoon de daay génn maanaam li bindoon daa koo jox ni ko yaa waxoon lii ne wax kenn mu ma toon doon Cheikh Sadio ci fii laa koy doone auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke sëriñ Tuubaa barke Cheikh Sadio sëñ Modou jërëjëf gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu santaat yàlla ni mu ñu boole ñu doon taaliba Cheikhul Khadim mën ni ko santaat ko ba Cheikh Sadio nekkee suñu eh, ma lay sant bu baax mhm. di ziyaara suma baay Moustapha Mbaye jiwaalo fi mhm. xalifa Cheikh Sadio Mbaye ziyaara si Moustapha Mbaye bi xalifu Cheikh Samba Diarra mbay di ziyaara aussi Serigne Baye Samb bu Tëngéej bi port parole famille bi sëñ Ibrahima jërëjëf ñu ngi lay sant waxtaan wi leer na lool di sant sunu waajur ba tayir mhm. ak jàngkat yi rawatina si Moustapha ñu sant yàlla na gën ni daaw defoon na émission bi fii. Mhm. kon nañ sant yàlla ba ñu yàlla may ren ñu fekkewaat ko ba defaat ko fii. lu jërë sant yàlla la. may sant suma soxna soxna Ayda Cuun mhm. ak suma xarit bële ma góor sekk buñ koy def daaw yàlla rek a man mhm. ñu ngi fi woon kon amul amul amul Eh, man nag surtout Cheikh Sadio la mhm. mu mel ne kon tey Cheikh Sadio ni mu deme ak suma maam wax na ko léegi Sadio Modou Mbaye ko jur Modou Mbaye moo jur Cheikh Sadio jur Cheikh Samba Diarra Mbaye jur Mandémé. suma maam mi jur altëgg mi jur njéem mu jur ma altëgg ñaar la altëgg mi jur suma baay altëgg mu mag ma leen ko tuddee ma njéeme aussi mi jur altëgg ah, bokk ak Cheikh Sadio benn baay ak Cheikh Saba Diarra Mbaye kon tey mu mel ne ku doon wax tey waa kër maam Thierno Ibrahim ak waa kër Serigne Touba te mu dudut noonu man nag yàlla baaxe ma ma juddoo ko yaroo fa ba a fendi jàngi dunduma mag ñooñu mais dama daan dégg li ma xam daal ba xam ko moo di waa mbayeen kokki la nu cosaanoo ca yàgg nañ fa def ay kiraam avant loolu borom borom kokki di Matar Dumbe Jóob sëñ Ibrahima wax na léegi ci histoire booba amoon ba ñu bind mbalaan ma loole moo tax bu ñu tagg waa mbayeen naan boroom def leen ci der mbay parce que bal dafa takk muy dal di wadd waaw ñu naan ma raw boroom fagle boroom def boroom def ci der mbay altëg ak Sadio boroom def ci der boo ko daan dégg loolu la woon ca booba borom kokki bu mu jaaxlee xam ne Sadio mu mag ma boroom xam-xam la ñu boole ko nag moom mu bindal ko loo xam ne moo ko aar loolu lu am solo la ñu xam aussi ne waa Mbayeen ñi ñu mel ñi dafa bari ñu sant Guèye ñu sant Cuun ñu sant Mbuub ñëpp boo seet dàtt ba mooy Mbayeen c'est nag ku sant Mbay bu demee dugg ci geneen kër bu sant Guèye wala Mbuub meññeen wa aussi benn rekk lay doon. looloo tax waa Cheikh Sadio yi këram dafa yaatu macha allah sët yi ñii dañu sant mbay yi sant yeneen sant mais lépp Cheikh Sadio la. mën naa xamal aussi ci këraama yu ñuy wax. Mhm. ne képp ku sant mbay dëgg jóge ci Sadio mu mag ma am na lu la yàlla may ku sant mbay dëgg. am na lu la yàlla may en général bul sax waxantu parce que loo wax dang ko gis donc kiraama yi yin doon wax te sama maam bàcc tey loola ay sëtam yu bari ba ci ay sëtam sax am na ñu ko ci ñu ko ci ñu ko ci ñu ko jële ci moom waa mbayeen ci boppam ñoom la yàlla defal ñoo xam ne daal doy na waar man ba may gën di tuut tànk dama daan sax am yoo xam ne ma dama man dama daan yéemu bëgguma woon sax di xalaat en général lu ma xalaat yàlla nay lu baax bu dee safaan may dama koy gis ala kulli xaal damay nettali rek benn anecdote dama mas a dem Sédhiou fekk suma xarit suma cousin Madoun doon fa jàngale bu ñu demee Sédhiou ñu àgg fa tàkkusaan ñu toog nii bi ñu toogee naan attaaya ba pare ci mbaar mi di féexlu ñu toog ba yàgg may leen daw leen jaan jàngook barke Cheikhul Khadim ba ma koy wax dama leen doon tiital ba ñëpp jógee daw ponkalum jaan mu ñu romb barke Cheikh Sadji xamuma dara mais damay bëgg pour jox wax sëñ ma tey li mu wax que am na waa mbayeen loo xam ne yàlla daf ko def ci ñoom waaw te loolu yàlla yàlla yàgg sunu maam la waaw maam bàcc moom man suma xarit la woon suma maam la woon parce que bàyyi la ci sama wayjur wax naa ko léegi ne Sadiaye ak Mandiémé ñoo bokk Modou Mbaye waaw Mandiémé moo mu jël moo jur kon sama papa man maam ma maam Mati Bàcc baayam lañu man ñoom samay maam lañu. samay maam lañu sëñ Mati yi mi sama papa la sëñ Xaadim sama papa la mais maam Bàcc moom sama xarit la woon yal na ko yàlla xare aljana daf fi daan ñëw lu bare bare bare bëggoon ma di ma ñaan te lu ma mas a ñaanal nag gis naa ko mas naay dem élection di xëccoo mairie mu ne ma tàllal soxla ma tàllal mu ne ma bal ba tàkk na adjoint maire laa doon bu joxe rek ay firnde ay firnde kon tey bisam faw ñu di ko dundal sama mati noonu la meloon sama wajur tudd na ko doom tudd Cheikh Sadio doom donc moom itam noonu la meloon maam ma tëyir bu ko merloo soo ko merloo lu mu am wax mu am lu mu wax mu am kon lii mënuma ko ci bañ a bañ a seede di nag sant mhm. parce que lii man awma dayo ba tey mais dama ciy sant yàlla. Mhm. bu ñuy waxtaan ci ku na Cheikh Sadie Mbaye mhm. samay baay nekk fi. Mhm. samay ñépp nekk fi ñu jël tàmmu sama kër. sëñ Xaadim jagleel ma ko na dem leen ba kër sëñ ma Fatim. ma nga xam rek laa ngeen waxtaane ko fa. ñëwoon daaw ñëwaat ren. damay sant sëñ Xaadim. yàlla na sut way juróom wa fan bisam bii mu koy defal yàlla na ko yàgg a tàntal ci barke Serigne Bamba barke Cheikh Sadio ne ma sëñ ma tëyir sëñ sëñ ma fayam sant naa ko gërëm naa ko suma way jur la wante fa waññeeku xam ne comme maa ñoo bokk benn maam te ma njëkk a juddu mu bàyyi ma lépp waaw ca man moo ma manal mais man mënalu ma ko daal dara laa ko mënal mais nag bàyyi naa ko yàlla bàyyi naa ko ak Cheikh Sadio. Mhm. loolu rek laa amoon lu may lu may lu may. lu may barkeloo di jéggulu bu fekkente ne am na ci loo xam ne du noonu aussi au du téléspectateurs yi et eh, maa ngay jéggulu xëy na mën na maa wax loo xam ne du noonu wala ñu war ko mottali wala ñu war ko jubbanti lum ci mën a doon dama fortaatu di wax rek et puis damaa dégg rek mais liiruma jànguma barakallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam Ah, mbokk yi mu ngi noonu yaakaar naa ni seex ma Fatim dégg ngeen ah, leeral gi nga xam ne leeral na ko ah, waaye wax ko ci diggante waxtaan wi nga xam ne def nañ ko ci seex Sadio waaye tamit Cheikh Massamba Thiatam mi nga xam ni moo amee taxawaayu bis nga xam mooy bisu Cheikh Sadio at mu jot taalibe yëpp di fa bokk di daje te jii sëñ Xaadim mi nga xam ni mooy taam wutu ko toog toogaayu bàyyam fa seene wéyale liggéey bu rëy boobu nga xam ni Baye moo ko doon doxal moom it émission bii bu amee yàlla gémm ma tax moom it dañ koy ñaanal suñu borom taxawu ko suñu borom yàggal ko suñu borom wéral ko nit la koo xam ni nit ku baax la nit ku tedd la waaye nit la koo xam ni euh, mbiri Cheikh Sadji rek ko ñor euh, mbiri euh, Cheikh Massamba wuy juróom képp ko ñor ndax te bu na bàyyam liggéeyal na bàyyam ba lax ngërëm moom te yaakaar naa ni loolee ñëpp xam nañu ko tabaarakallahu mi ngi noonu sant Cheikh Ibrahima Mbaye bu baax sant ma Matahir ñoom euh, Moustapha mi nga xam ne ñoo doon yëkkati xaside yi waaye sant soxna yi de mi nga xam ne tabaarakallahu moom it euh, mi ngi ci jotaay bi euh, incha allahu rabbi xam ngeen ni taalibi Cheikh Sadji yëpp danañu daje Mboro la 5 incha allahu tabaarakallahu woo nañu ci ñëpp ñëpp bokk fa daje te xam ni yiw la te xam ni tuyaaba rek lañ fay jëlee ndax yàlla moo wax ni waxtaani nitu yàlla yàlla ci boppam dana wàcc yërmande Euh, ci ñoom kon nag euh, ñu jox leen dig daje incha allahu maa ngi nuyu bu baax ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di ñu seetaan di nu bàyyi xel euh, lu mel ni Argentine lu mel ni Brésil waaye lu mel ni itali ñoom ñëpp ñu ngi jot seen i seen i seen seen i yóbbal ci ñun ak ak bégg émission bu baax a baax waaye rawatina nag Gàmbi Gàmbi gi nga xam ni saa suñu fa duggee rek ndeysaan dañuy béggee bu baax ci émission bu mag bi nga xam ni mooy kéemtaanu mag ñi ak réew mi yëpp. Euh, fàttewuñu kenn waaye maa ngi nuyu bu baax bas ca Ngourane euh, taalibe euh, Serif Maxfu borom Ansar moom it ndeysaan saa su ne mu ngi seetaan jotaay bi ak soxna Anta ndeysaan ci Tiwaawoon kër Cheikh Awa Balla way juru Ousseynou ak ñëpp bu nu tuddee rek dañuy juum mbokki jox naa leen di daje incha allah geneen kër geneen mag wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي يا محمد يا محمد يا حبيب الله